jiiti réew yi 7 jot na ba tegal euh, ñaar fukki simili ak juróom-ñeent ñu àddu ci météo bi. aywa xibaaru jaw ji ni koy defee suba su ne Oumy Samb lañ ci àndal Oumy Samb ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay euh, na Fati bonjour à toute la team et bonjour à nos chers téléspectateurs donc on y va pour la météo du jour euh, tuuti fraîcheur matinale ressentie légèrement. Euh, ressenti au niveau national des températures yoo xamante ne elles descendent jusqu'à 14 degrés ce matin euh, à Kaffrine lay doon 18 degrés ñu xaarandi ko ca Matam 23 degrés la maximale pour Kédougou 20 à Dakar 19 degrés du côté de saint ànd ak ay niir yoo xamante ne euh, dañu xaw a takku nuage dense lay doon ca bët gànnaaru réew mi dans l'après-midi chaleur de mise encore hein, 41 degrés qu'on va retrouver à Kaffrine ce matin très froid euh, chaleur euh, de mise, comme je viens de le dire l'après-midi, 41 pour Tambacounda, Kédougou, ainsi que Kolda, Sédhiou, Matam également, 36 à Saint-Louis, 36 pour euh, Dakar, Toutenir également, yoo xamante ne euh, ils vont nous accompagner tout au de la journée harmattan bi di jógee ci bët gànnaar au nord du pays le vent souffle de nord à est donc chaleur bi ñuy recevoir ni euh, c'est une chaleur qui sera euh, sèche ànd ak tuuti euh, mbooya ci atmosphère bi donc loolu noonu lay demee ci bésub tey jii nii mu ñu xoolee marée la météo marine pardon 7h27 donc fi liggéey ne fees na 13h43 marée haute marée basse 19h31 lay doon ci kanam tuuti. Euh, bu ñu jullee timis ba pare pour le soleil 7h39 fii ak 7 minutes euh, environ euh, ci la jant bi nar a fenk 18h59 ci lay làqu rek moom ba ëllëg sachant que l'index UV rayon ultraviolet ultraviolet excusez-moi diggante midi 14h ñu ngi toll ci 10 donc se protéger. Euh, la casquette wala les yeux encore et puis yaram yi tamit la peau ñi am ay feebaru yaram Euh, diggante heure boobu même soo leen mënee euh, rester à l'ombre bañ a euh, janoog jant bi mooy gën en tout cas Mm. puisque l'indice la est très très élevé euh, ci diggante ñaari heure yooyu noonu mu ngoog ñu yemale ko fii euh, bulletin bi ba ci kanam mm. ñu daal di ko tënk après euh, qu'on ait reçu l'invité pardon incha allah à ci kanam incha allah ci ñaareelu pàcc bi ma fàttali leen ñaareelu pàcc bi daañu dalal Chamsidine Aydara moom nag moo jiite kuréelu mémorial la Joola mu bokk ci njaboot yi nga xam ne wayjur yi nga xam ne seeni njaboot dafa loru ci